ay rajo téeméer ak juróom bu tombal juróom ak ci ay Africa TV bi simila ci xibaar yi ñu dooree ko ak boppu xibaar yi Filipe Kanilaay bi ba tey moo ngi takk ci biir géej gi euh, ginnaaw rek euh, ba nga xamee ni ca àjjuma ji la am rek jafe-jafe passenger yi si nekk nag ci guddi gu bët setagul ndax nag seeni bagage ya fa des des na ko yaatal ci biir xibaar yi. nguur gi dogg nañu ngir jënd ñaari ferry yu yees ngir rekk fexe saafara jafe-jafe yi eh, ci nu ma gën a gaawee ci wàllu dem ak dikk wi rawatina ak ci géej gi ci diggante Banjul ak Bara des na ko yaatal ci biir xibaar yi. fukki ndaw yees tegoon loxo ca Manduwaar eh, ak sa Marakisa ba nag. Euh, yu làqoon leen jant bi muy rek euh, ñi nga xam ne rek des leen rek tegoon foofee euh, daal nañu leen rek may bàyyi pëndégandiku bokk yi lii mooy nasub xibaar yi kiis ma dikk ñu na ci ko mbokk yi daleen nag jàmm ci xibaar yi ci euh, ay radio ak ay Afrique TV ci kàddu gi Mouhamed Mbaye Garmi ci xarala gi Khadija Sy ak euh, Diarra Sylla ni ki ni leen ko junjee ci ponk wi noonu lañu ñu dooree dëgg-dëgg xibaar yi ak yéen féerib kanilaay bi lu toll ci juróomi fan moo ngi takk ci géej gi ginnaaw jafe-jafe yu mu am ci rek teer si loolu nag tax ñu bari ci passenger yi ci nekkoon nag ak seeni i bagage daal di jaaxle lool euh, ak it nag seen yes fa rek daal di uh, bàyyi uh, firi bi nag uh, ba tey nag moom mi ngi ca diggu géej ga mënugula rek daal di teer ndax nag jafe-jafe bu mu rekk daal di am foofe kanilaay nag moo doon benn firi bu doon rek daw képp ginnaaw nag ba kunta kinte amee jafe-jafe ba ñu rek yóbbu ko ngir yeesal ko ci diirub juróom benn ay bés ci nag ajjuma ji ci kanilaay firi bi nag ci la daldi ci la ci rek daal tegu ginnaaw jafe-jafe yu mu amoon ci rek teer ak nag client yu mu rek yeboon euh, ba tax sax ni bi ñoom ñoo mujj rek daal di ñoo ñu nekkoon ca bër génne leen waaye nag bagage ya euh, fala rek daal di des moom itam nag yóbbu nañ ko ngir daal di koy defeer askan wi nag gën a jaaxle ndax nag ak digg euh, bu dem ak dikk bu rek daal di sooxe lool njiit réew mi nag Adama boro daal dina seeti ñooña ngir seeti goo xam ne rek daf leen daal di bett ngir rek daal di xool ñoom fu ñu rek toll ci liggéey bi ci féeri nag daal di leen xamal euh, li xew daal kenn ñenn waralu ko lu rek ab sàgganteef gu njiit yu jiite féri bi sabab moom njiiti réew mi nag defarkatu féri bi daal dinañu ko nag euh, dalal xelam bu baax ci rek tolluwaay bi daal di koy xamle itam liggéey bi mi ngi ci yoon bu baax a baax te nag dinañ gën a farlu euh, ngir rek fexe nu ñu rek daal di saafara jafe-jafe yi ba gis na rek dem ak dikk bi ci géej gi foofe ci diggante Banjul ak Baara daal dina rek dooraat ci nu mu raan rek daal di amee kuy teewal réewum Russie ca kuréel gu ëmb kaaraange gi mbootaay yu xeet yi maanaam United Nations Security Council eh, daal dina duppee addu gu ñenn ci membres yu kuréel gi daal di rek addu jëme ci cong gi Iran cong jëme ci kaw Israël ne rek ay nafeq lañu ak ñuy rek matt ba noppi di rekk ëf mu dal di xamle ne eh, lu rek feeñ ci kuréel gi du lenn lu dul rek nafeq eh, ci gaaw gi nag réewum Iran dañoo rek sànni ay misail ca réewum Israël looyu nag ñu dippee ko ñu dippee ko rek ak fayu jëmee rek ci Israël ginnaaw nag ba ab cong bu rek amoon ba rek faat ci seeni way kaaraange ci ak ñoom ci seen rek ay commanda loolu nag ñoom leen dippee rek ne cong bi nga xam ne nag Israël da Iran daal dina ko amal ci kaw Israël li ñu ko gisee moo di rek ab fayu ki nga xam ne mooy teewal nag maanaam représentatif bu rek Russie ca mbootaayu xeet yi ca kuréel gu yor wàllu kaaraange gi mu United Nations Security Security Council euh, moom nag dafa daal di xamle nag ne lii euh, double standard la ak rek hypocrisie maanaam ak euh, naafeq ak nag di màtt di ëff ndax nag ne na bu fekkee dafa am yenn réew yoo xam ne ñoom bu fekkee dañu war a rek daal di aar seen bopp ngir dafa doon loo xam ne seen àq ak la kon ñeneen ñoom lu ñu war a def loolu yi nag mu daal di xam ne nag lu mel noonu liñ ci war a taxawee nag du taxawaay bi nga xam ne moom la gis ci Security Council bi di ko rek daal di amal mu dippee ko daal ne du lenn lu rek ak naafeq goo xam ne yii daal wane nañ ko ci jamono jooje la su war def nak moy fexe ba jëm ci nak nees di safara yenn xétu fitna yoy ba du rek am mo gën nak di jéem a di rek jëm am foy rek far wala rek foodul rek far loolu nak mom dal dina len ko xamal ci ndaje mo xamé ni ñu ngi ko don rek amal ci dimanche gi ci rek lu aju nak ci ciongu gi nga xamné nak Iran daal dinañ ko amal ba jot a sànni ay missile ci sen kaw yoy nak missile dal dinañu ñu xamlé ne lim bi lu toll bo jëlé témèr bo jël ci juroom ñen fukk ak juroom ñenti ñi yëpp jàllul maanaam rek daal dinañu ko kar maanaam intercept nañu ko ba rek amul benn jéyee boo xam ne rek daal dina ko fa jur ci niñ ko rek daal di euh, fogee woon ñu dellusiwaat ci réew mi wax ci coowal réew mi ak li métti bopp réew mi bokk na rek ci eh, féeri eh, loolu yi nag tax na nguur gi ñoom nag daal nañu dogg ci rek ne des nañu jënd lu toll rek ci ñaari féeri yu yees ngir rek fexe eh, ba daal di indi saafara ci wàllu woowi di Gambia Ports Authority muy kuréel wala sampeef gi rek ngànk wàll wi daal nañu rek siiwal ne dinañu rek daal di xaatim ab torloo maanaam rek saa contrat tey jile ci seen diggante ak Damen Sipiat natt ci rek lu jëm ci ñu daal di samp maanaam tabax ak daal di rek euh, design li nga xam ne rek mooy ñaari féeri yu yees euh, ci rek diggante Banjul ak Baara ngir rek mën a yombal lu jëm ci euh, wàllu rek transportation bi ci géej gi réewum Gambie nag ginnaaw ba nga xam ne nag ci. jafe-jafe yu nekk ci wàllu géej gi euh, muy rek fiir yi nga xam ne rek des ñu nekk ci jafe-jafe ginnaaw ba nga xam ni euh, daal di nañu siiwal ci samedi gi muy gaawoon ne rek euh, fiirub kanilaay bi ci boppam day dem fekki fiir yi boobee di konte kinte ngir rek ñu yeesal ko maanaam maintenance ginnaaw jafe-jafe yi ko daloon wala yi ko wokk ci àjjuma ji loolu nag tax mbir mi gën a rek métteeti ndax nag fiir bi ba mu cangee woon ca digg géej ga ak nag ña fa nekkoon ñu bari ci askan wi tiitoon nañ waaye nag ba ñu daal di siiwalaatee nag ne Euh, léegi benn féeri du daw ndax kanilaay bi nga xam ne moo doon sox moom ci boppam day rek daal di dem ñu daal di koy euh, maintenance euh, ci wàllu woowi nag ñi nga xam ne nag ñoo di nguur gi jaaree ko nag ci sampeef gi di Gambia Ports Authority ñoom nag nee nañu ni ki tey dinañu rek daal di xaatim ak torlo muy rek sign contract ngir rek daal di amal ab wala jënd ñaari féeri yu yees ci foofee loolu nag tax na ba tey nag ci ñuy jàll wala ñuy jëfandikoo baara ak Banjul nekk ci rawatina nag askan wi ndax nag fekkee sax ñoomi euh, bu ñuy faral di jaar euh, fi nga xam ne rek moo di euh, ci géej gi ngir dugg Banjul wala ñu nekk Banjul di génn ngir rek jaar jëm ñoomi wala feneen loolu dafa rek doon jafe-jafe ndax nag bu doon ci féeri bi ñaari dem dem ak dikk bi rek dafay nekk juróom-ñaar fukki dalasi ndax nag dem gi fanweer ak juróom la dëpp gi fanweer ak juróom la waaye nag bu ñu nar a jël gaal yi tax nga xam ni gaal yi képp ñooy daw daf leen di dikkee rek téeméer ak ñeent fukk mu doon nag loo xam ne lu seer la ñenn ci askan wi foofu sax nag daal dinañu àddu dëkk nag ca baara moom nag daal dina xam ne ne moom ci boppam euh, bi nga xam ne nag daal dinañu suspend li nga xam ne moo di ferry service bi nee na jafe-jafe googee euh, dafay rek jur jafe-jafe ci koom ak rawatina nag ci business businessmen yi euh, foofee nag ca baara ndax nag ñu ci bëri ci baara dañuy seen bagage yi fu ñu koy jëlee rek mooy Banjul kon nag bu fekkee ne ferry nekkul di daw jafe-jafe lay doon wala itam dina doon loo xam ne rek bu ñu nar a jël gaal payoor gi dafay gën a seer wala bu ñu nar jaaree fi nga xam ne rek moo di Transgambie loolu itam dina doon loo xam ne dafay doon beneen payoor goo xam ne dinañ ko rek rek teg ci seen kaw moo waral nag ñoom ci seen bopp ñu daal di ñaax nguur gi nu mu gën a gaawee daal féeri yi ñu daal di koy defar waaye itam nag gën a gaaw jënd li nga xam ne mooy féeri yu bees ngir rek fexe ba jafe-jafe yooyee mu doon loo xam ne euh, lu ñuy rek saafara la ci dar-dar bi Fatou Thiam moom itam nag doon ab jaaykat bu yeewoo ci Esau moom nag nee na euh, ci rek bis bi daan ci mën a rek dem Banjul daal di rek jaay ay bagaasam dëppaat ci bis bi waaye nag léegi nii rek ginnaaw féeri yi dawut doon na loo xam ne dafay doon luy métti ndax foogul rek mën a def ndax nag bu ko bëgg continuer wala di wéy di def te nag euh, gaal yi dañoo rek daal di seer euh, dina rek doon loo xam itam dina ko rek sonal lool moo waral nag moom itam li muy sàkku rek mooy nguur gi nu ñu rek daal di amalee ab jéego yu ñu saafara mbir mi euh, ci noonu nag ñi nga xam ne rek ñooy askan wa yeewoo ci ñoom yi ak ñenn ñoo xam ne itam dañuy jëfandikoo féeri bi ñoom nag daal ñoo ngi waajal doogaanub ñaxtu boo xam ne rek dañ koy teg ci jàmm muy rek peaceful ci rek dimanche ji mu a dëppoo ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru waxtu jotee ba tegal euh, fanweeri simili dina juróom-ñeenti waxtu jotee ba tegal fanweeri simili euh, daañu rek génn ngir rek fexe doo def doogaanu ñaxtu euh, ci rek jafe yi nga xam ne féeri bi ñu ngi koy rek daal di amal boobu la doogaanu ñaxtu ñu ngi koy rek xaar foofee ca Baara ak itam nag ca Banjul ci ñaari boor yëpp lañ ko bëgg amalee ca terminal bu Banjul ak nag ca terminal bu Baara ngir rek wane nag seen naxar waaye itam jëmee ci jafe gi waaye nag doogaanu ñaxtu jàmm la boo xam ne rek dañ bëgg ñi nga xam ne rek ñoo di kilifa yi ñu daal di leen dégg ngir rek mën indi tontu ci ci seen jafe ñu wax ci leneen mbokk yi ñetti ñi nga xam ne rek ñetti euh, ñooñ ñoo xam ne des doon rek bëgg yóbbu lu toll ci juróom fukki Gambien ak juróom euh, yóbbu leen fi nga xam ne rek moo di tugal jaaree ko ci géej gi euh, ñooñu nag attekat bi daal dina leen atte ba daan leen tëj leen nag ci kaso gi bu ñu nag ci xibaar yi principal magistrate Anna Omendi ca Birkama Court moom nag démb la daal rek teg daan ñi nga xam ne rek mooy ñetti ñi leen ñetti sénégalais yoo xam ne rek dañ bëggoon yóbbu. ay nit fa nga xam ne rek moo di eh, ca gaal dugal leen ca gaal ga ngir yóbbu leen rek biti réew jaaree ko ci yoon wi nga xam ne yoon wu baaxul wi la kenn ki di Ousmane fay Pape Birame Diop ak Magay kamara ñoom ñetti ñëpp nag nangu nañu les leen tuumaal ne rek ñoo ko doon def ngir bëgg yóbbu ñenn te nag ñoom sax dañ leen joxoon pamitu dëkk file ci biir réew mi nekk fi waaye nag ci noona bañ leen jàppee seen pamit bi ci boppam des ko daal di eh, dag nangu maanaam rek des ko révoque waaye nag daal dinañu ko daal dinañu leen rek atte eh, ki nga xam ne rek moo di magistrate bi nag ginnaaw ba ñu leen dégloo ñoom ñi nga xam ne rek ñoo di ñetti ñoo ñu doon rek def eh, lool yi nga xam ne dëppawul ak yoon ba ñu leen dégloo ba ñu rek nangu daan yees teg seen kaw magistrate bi nag daal dina teg atte daal di xam ne ne ginnaaw ñoom daa yàquñu wala sax yéexaluñu atte bi kon nag dinañu daal di rek dawal yërmande eh, ci mbir mi ndax ñoom ño ñoom ñetti ñooñu sax dañoo ñaan ngir ñu daal di leen jéggal wala rek ñu am yërmande ci seen kaw moo tax nag attekat bi daal di xam ne ne teg nañ leen daanub atub kaso boo xam ne dinañ ko rek daal di tëdd teg ci itam nag ñu fay lu toll ci euh, ñaari junni dalasi maanaam 2000 dalasi bu ñu ko nag fayut dinañ ci tegaat beneen at boo xam ne das koy rek daal di tëdd euh, ci euh, kaso gi. mbokk yi ba tey waxaat ci leneen waaye ñeelaat mbirum féeri bi ndax nag euh, lu euh, def waxu lu ay di jàmbat euh, baara baro ki nga xam ne rek moo di njiitum réew mi aadama Barrow moom nag daal dina nemmeeku ñi nga xam ne rek ñoo di ingénieurs yi maanaam rek ñuy defar machine bi da nemmeeku goo xam ne rek daf leen nemmeeku ci rek li nga xam ne moo di ak mbetteel kenn yëgu ko dafa rek jekk saay rek wàcc ci seen kanam ngir rek daal di seet fu ñu rek daal di të toll ginnaaw ba nga xamee ni nag ferry bi mu amee jafe-jafe ñu ci bari ci askan wi ñu ngi ci yëy yàbb yàbbi rawatina nag passagers yi nga xam ne ñoo nekkoon ci sax ci seen biir moom njiiti réew mi nag ba muy dem daal dina ànd ak nguuram gi muy government officiel ak ñenn ci nga xam ne ay technical experts lañ maanaam rek seen xel dafa màcc ci wàllu woowee ba ñu nag àggee moom njiiti mi ci boppam mi ngi doon xool la di séentu li nga xam ne rek moo di la mu gis foofu ci ñuy defar machine yeeg yu ñu mel noona moom njiiti réew mi nag waxtaan ak ñoom rawatina nag ñi nga xam ne ñooy indi si ak nag nag ñiy liggéeyee foofee ca Gambia Ports Authority daal di leen xamle itam nag ne moom li ko yitteel nag mooy jàmmuk askanu Gambia ak nag seenuk li nga xam ne euh, mooy dal ak i nag li nga xam ne mooy euh, seenuk bëgg-bëgg kon nag moom mu ngi leen di ñaax ngir rek euh, jafe-jafe bi nu mën a gën a gaawee nañ ko rek fexe nañ ko rek daal di saafara moom ji si réew mi ci boppam daal di xam ne itam nag ne nguuram gi ba tey ñi ngi taxaw teem mu gën a dogu ci rek jàppalante ak ñoom ba gis ne rek mën nañoo amal dem ak dikk bu yomb ci wàllu transportation mi ngi xam ne itam nag ne lu jëm ci wàllu accountability ak efficiency maanaam lu jëm ci wàllu leeral ak itam nag lu jaar yoo nag lu gaaw ci wàllu public service delivery loolu lu ko yitteel la te itam nag ne nañ ci taxaw bu baax a baax moom njiit réew mi daal di xam le itam nag ne nguuram gi euh, dafa rek am dina def kéem kàttanam ak itam am na li nga xam ne euh, moo di ab pas-pas yaatoo yaatu ci rek nekkinu askanam ak nekkinu ñi nga xam ne rek ñooy yeewoo ci biir réew mi ngir fexe euh, mën a moytandiku yenn accident yu mel noonu wala sax yenn incident yu mel noonu ngir rek muy daal di xewaat looy ci rek. ëllëg moom nag mu ngi leen ci daal di euh, dànkaafu bu baax a baax teg ci itam nag di xam la ne nañ fexe rek daal di def lépp lu ñu mën a def ba gis ne euh, féeri bi daal na tàmbali euh, dawaat ci ni mu gën a gaawee ci jafe-jafe yi nga xam ne askan waa ngi koy jànkuwanteel ay rajo téeméer ak juróom bu tombal juróom Africa TV ñu woyal xibaar yi ci boos muy rek kuréel gi nga xam ne euh, moo yor lu jëm ci wàllu natt ak xool ak wàññi lu jëm ci rek askan wi seen moomeel ak kii euh, li nga xam ne rek moo di euh, suuf seek yacce rek aju muy rek population census loolu nag ñu ngi ko war a door ci noonu nag ki nga xam ne mooy ñàkka si MB Sagnang di rek statisticien général maanaam rek njiit ñuy rek yor wàllu rek statistique ci rek Afrique euh, daal dina rek xam le ne lu jëm ci wàllu nag seenug rekk euh, dëggu ak seenu nag euh, intégrité loolu nag du ñu ko foowee benn yoon te nag du doon loo xam ne dañ koy compromise te lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu koy euh, ñagasal la loolu yi duñ ko rek bàyyi benn yoon mu am rek yoon foofee daal dinañu xam euh, ci rek talaata ji ba nga xamee ni ñu ngi rek dooroon di tàggat ñi nga xam ne rek ñoo war a tàggat maanaam ñi war a tàggat ñu waroon leen tàggat muy trainers of the trainees ñooñu nag leen doon tàggat ngir rek lu jëm ci wàllu rek population census bu ñuy rek waajal muy rek daal di wàññi dëkkuwaay yeeg nit ñekk kër yeeg euh, li nga xam ne rek moo aju ci wàllu réew mi euh, su ko defee rek ñu mën a xam réew mi euh, li nga xam ne rek mooy tolluwaayam ci dëkkin beeg ci nekkinam lépp ñu ngi koy waajal nag ngir amal ko moo waral nag moom ci boppam muy daal di xam ne lu jëm ci seen intégrité duñu ko rek daal di naxasal te lépp lu ko bëgg naxasal loolu yi duñ ko rekk daal di may yoon bëgg nañu lépp jaar ci yoon te nag ñu mën a daal di teg lépp loo xam ne rek ci yoon lay rek nekk nag duñ ci gis

Gambia am nañ mbégte ngir taxawee jotaay bii di fukkeeli yoon ak juróomi OIC summit ci ñaari fan ñeneenti fan ak juróomi fan ci weeri mai 2024 dinañ dalal ay buur ay njiiti réew ñu topp ci njiiti réew yi ak ñi nga xam ne ñooy taxawal seeni réew ci mbootaay gi ñu toll ci juróom fukk ak juróom-ñaari réew ñu bokk ci Organisation of Islamic Cooperation ñoo fee daje ñu war leen a dalal fii ci réewi Gambia teeru leen sargal leen bu kenn dootut fàtte ñu war a dajee ngir mun a waxtaan càmbar nu ñoo am amee jàmm ak bennoo mun a mànkoo si lu ñoo jëmale kanam ak yokkute du rek si suñuy réew waaye àdduna wërngal képp loolu tax na ñuy sàkku ci ñëpp ñu defati ko nañ ko daan defee àndandoor bu taaru ba ñu xamee woon jàppale nguur gi dañ am ko niñ ko buggee ci xew-xew bu màgg bile na aada ak cosaan gi génn ñu yaatu ak taaral jikko yi comme niñ ko daan defee wane suñ bopp ci kanami àdduna yépp nañ leen bokk a def taarix nañ leen mbooloo songa ko you jërë ngeen jëf dalal leen nag jàmm ci ay rajo téeméer ak juróom bu tombal juróom ak ci ay Africa TV xibaar yi ñu wéyal ko manduwaar ci jafe-jafe suuf muy rek laan saga bi nga xam ne dafa nekk ba ñu rek jàllale woon ci fukki ndaw ndungu si ñooñu nag daal dinañu leen bàyyi bàyyi bu néggandiku ki nga xam ne nag mooy principal magistrate Anne Oumendi ca Birkama magistrate court ci talaata ji daal dina joxe ab dogal ngir ñu daal di rek bàyyi bàyyi néggandiku fukki. ki eh, ndaw ca rek Manduwaar ak ca Marakisa ci ginnaaw rek jafe-jafe ya ñu amoon foofee ñoom nag dañ leen bàyyi bàyyi ndigg ndikku ñoom fukki ñooñu nag eh, ci ñaari dëkk yooyu di rek Manduwaar ak Marakisa jafe-jafe bi nga xam ne moom lañ doon toppee eh, bokk nañ rek ci ñàkk dëppoo ak yoon boo xam ne rek police high command ca West Coast Region moo ko rek joxe woon ñoom itam nag ñu daal di teg foofu ndigal li dem jëfee la leen neex loolu lañ doon leen toppee ba yóbboon leen ci nag ci yoon ba bàyyi nañ leen euh, bàyyi ndëggeen ndikku ci rek njëgub ñaari téeméeri junni maanaam two hundred thousand dalasi euh, ci kenn ku nekk ci rek ñoom fukk yooya euh, teg ci itam nag ab ñaari gambien ñoo leen rek daal di séede waaye nag ñoom ñi nga xam ne ñooy fukk yu ndaw ñooña ku ci nekk nag sab kayitu say document maanaam rek travelling document muy ID card ak passeport yëpp daal nañu ko jël ca ñoom te teg tegle wax leen itam ñu bañ a génn réew mi saa bu ñu leen rek soxlaawaat ngir rek ñu mën a dem Euh, bàyyi ndéggeen ndikku ngir rek ñu daal di dellu ji seen kër euh, ba keroog rek ñuy continuer euh, lu aju ci seen i mbir. mbokk yi jërë ngeen jëf ci sa kolte gi di xibaaru ci ay radio ak ay Afrique TV xibaar yi buur na dig leen daje ci naan jotaayu xibaar bu ci yàlla àndee lu dul loolu wéy leen ànd ak programme mu rajo bi téeméer ak juróom bu tombal juróom ak ay Afrique TV télé bi daj Afrique buur yi buur yi mucc ak mucc lee saa am na ko yàlla na ko def ci yéen mbokk yi jërë jëf.